Medina TV ak Bprod Media am mbégte ak contentement comme ni ñu koy defee saa su rek waaye tey nag dañ toog ak daanaan polémique bi bëri na waaye xale bi nga xamante ni moo nekk si coow li saf mag ñi saf ndaw ñi bari too ñu ngi lay nuyu di la ziar bàyyi la nga nuyu moo ko internet yi. maa leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay di leen wax masa coono di leen ñaanal seen liggéey bi yàlla na leen ci yàlla defal jàmm. ñu fekk leen fi nga xamante ni moo di euh, Ouest Foire si euh, Auchan bi Sidy Diop doon sargal ak ñi nga xamante ni ñoo di ay soppeem comme ni mu koy defee saa su ne tey Sidy famille bi mooy sargal mooy sargal Sidy Diop. waaw Diop moom lu raw sargal sa dafay am ndax xolam bu rafet ak jikkoom bu rafet xam nga dalam ak yaroom ak xam àddunaam moo tax lépp lu mu am ci àdduna rek ci lu baax bu mu leen bett waaw lii bu mu bett kenn. mérito na ko te wan na waa Nord yar ak teggin te ñëw na ci fair waxtaan ak nit ñi waaye mu neex waaw ah, macha allah jàmm rek lañ koy ñaanal jàmm ju bëri lu mu am mérito na ko ci àdduna. waaw ñu sargal yéen ñi nga xamante ne yéen ànd ak moom naka ngeen yëg Barito. man Sidi Diop lépp mu xew rek man kontaan laa ciy yëg bu nekkee naqar kontaan laa ci yëg bu nekkee bànneex kontaan laa ci yëg ndax man. yàlla xam ne ne man boo nee jóob rek man fi ñu toll sama xol sedd na leneen loo ci teg rek bu nekkee saaga ndey bànneex la bu nekkee ñaanal la bànneex la man noonu laay dundee ak jóob lu ci waay wax bu ñaawee lu baax la bu rafetee lu baax la na nga ne siidi rek waaw. na nga ne siidi rek fan yi polémique bi bëri na jàppal terrain yi indil terrain yi bari too ñu ne terrain yi nga xamante ni moom la siidi doon maye coow yu bëri na polémique bi loolu naka la demee. xam nga damaa nekk xale pare nekk élément boo xam ne. perturbateur non sans sax. damaa bëgg a changer bi dama leen bëgg a na ne showbiz du fen moo tax ñii bëgg ma ñii bañ ma ndax tey chaque jour damay def loo xam ne surprise lay doon ci ñoom parce que ñoom boo leen yeewoon yeewoon ci ay nelaw ne leen terrain yi ngeen ne yéen ko moom baritoon na taxaw dañ lay naan déedéet kon coole mënul ñàkk quoi comprendre naa leen man nee naa leen mag bu mun fen day moytu xale bu bëri xam-xam mag bu mun fen day moytu xale bu bëri xam-xam ñun showbiz kenn mënuñ cee nax kenn mënu ñoo nax ci showbiz xam nañ lépp lu ñu wax dañ ko maîtriser ci àdduna duñu fenal kenn duñu sosal kenn Serigne Saliou rek laa yaakaar terrain yooyu ma ci waxee dara mu nekk ay fen barki Serigne Saliou Mbacke balaa semaine bee ca yàlla naa ko gis. mais am na ku génn ne terrain yooyu amul loolu. seetaanal sama interview bi tey lu ma musul def laa def teg ay audio lu ma musul def laa def tey pour mu leer rek xam nga wax waxet day am te ñoom dañuy ger geeru xaalis dañuy xool chaque jour rek seen combat pour ñoom xaalis moo koy jeexal. xale laa aw ma dara mais xel laay xeexee te booba léegi ban élément moo fi nekk bu leen di tas ban élément man maa fi nekk boo xam ne lu ñu waxee ma suul may ma leen dërëm te luñ luñ ma may ma jël parce que dama leen war ne game bi léegi nekkatul sos maa am lii te aw ma ko jënd naa yére 10 millions jëndu ma ko am naa oto 300 millions du dëgg di yor sa poche 30 mille di ko déclaré naan 30 millions loolu laa bëgg mu jeex ci game bi. nappante boobu laa bëgg mu jeex. loolu ñan ñoo ko mais xam xam ngeen li ma leen wax mos ngeen gis si àdduna Sidi taxaw wala Matar taxaw ne ñun ñoo jënd li wala ñoo moom lii ñun suñu lépp ci kalmoos rek sutura rek mais yow daal bu lamb bi tàkkee doo doo maye sa xaalis bu la nit ñi warul doo génne sa xaalis di ko maye loolu laa bëgg mu jeex ci gem bi te man Barito maa koy jeexal fi ñu toll ne ñi ngi samay tànk pour di ma toroxal pour di xool loo xam ne damay su mais non non monsieur Refo damaa ne xale waaye du ma kil doo ma yëmbal laa damaa xam lu bëri ba pare en plus nekkoon mbayar xam lépp xam lu fa am ak lu fa jeex dama koo xam man dama koo xam de barki Serigne Saliou bu ñu ma xoolee sa xam ne bari too du kil du ngaaka te nekk mu élément bu ñuy jënd nekk mu élément bu xaay di jënd bu wecc non man bari too la kullu soobismaan bu mës a jaar Sidi Diop man bari too maa la gën a dëgër bopp man jàpp ma yóbbu ma kaso tëj ma taxul ma noppi koromp ma xaay taxul ma noppi noqu ma taxul ma taxul ma noppi agressé sama taxul ma noppi man chaque jour Sidi ak dëgg nag waxuma la fen de di xëy tëb tëb wax si ay fen non non no non man lépp lu ma wax ci Diop dama ko maîtriser du ma sos du ma fen du ma yàq doomu aadama barki Serigne Saliou Mbacke lépp lu ma wax ci doomu aadama loo xam ne ay fen la balaa semaine bee jeex yàlla na ma ko yàlla suñu borom wan ci barki Serigne Saliou loolu man maa ko wax man ñëpp xam ne ne man du ma fen ci showbiz loolu du musa am ci àdduna ndax dara jaral ma ko ci àdduna ëllëg damay am njaboot mais damaa nekk vampire vampire bu mag laa mais li ngay mel ni dafa am ñu la mus proposé xaalis ne la Barito trahis trahimiser wala yu mais xam ne xam nga nee naa leen Sidy li ñëw ci moom sëg lu naturel lay nekk Sidy Diop moom mooy defar ay éléments ba mu baax ñu nangu loolu am na wala amul Sidy Diop mooy xool ku doonu dara mu def ko dara yaa comprendre kon ñun amuñu benn problème mosoo gis suñu audio bu fuyete mosoo dégg ñu ne kaaw Sidy Diop wala kaaw Matar am na audio yu fa tas diw de yàq diw de mosul am ci àdduna. kon ñun ñi ci jàmm mais ñoom ñoo nekkul ci jàmm yaa ngi dégg ay problème lañ bëgg a fay moo tax ñu jël ma di ma sóobiser mënul nekk li ma wax dëgg la yéen a ngi fi maa fi dagg leen ngeen dugal terrain yi bi nga ko tabaxee barki Serigne Saliou Mbacke man ma taxaw ne Siri Diop du waykat te xamul dara man maa ko wax man bari toow kenn ma vaar bu ñu tabaxee terrain yi mu nekk seen terrain ñoom ci man site bu ma taxawoon site bu ma taxawoon te du xamee ngeen ko bis bu ñu ko tabaxee barki Serigne Saliou ma may yaakaar àdduna ak alaxira ma wan leen ne Sidy Diop du waykat man maay fenkat bi maay showbizman bi man li may wax dama koo maîtriser te dama koo xam. yor ay terrain yoo xam ne kenn joxe ko te mais frère frère yéen seetaan yéen seetaan ngeen vidéo yi maanaam maanaam maanaam yéen seetaan ngeen vidéo yi yéen doo leen ngaaka li may wax yéen ma ko gën a maîtriser yéen ma gën a xam du dëgg kon terrain yaa ngoog ñu ngoog fi mu nekk nañ dem tabax waaw loolu kese la. mais mais mais mi ngay wax noonu yow tey jëndee nga say audio nga ne yi wane ni yéen moom terrain yi gars yi. non non ñun néew ñoo moom de déggoo wax ji de ñoom ñoo ñëw ne terrain yi dañ koo jënd may nañ ko orchestre bi terrain yooyu man maa ko tuddee tabax dee teg brique dee man maa ko tuddee kenn du fa teg brique ku dul ñi moom te ñi moom ñi ngi tabax. lu garaaw laa lay wax barki Serigne Saliou mi ma yaakaar àdduna àllaaxira man dara jaralu ma may wër di fenn wala may wax loo xam ne amul Serigne Saliou rek laa yaakaar li may wax dama koo xam terrain ya ñi ko moom tabax nañ ko ña cay dëkk ñi ko moomul nag dañ ko doon soobisé dem jël ay faux kayit taxaw naan terrain yaa ngi jënd nañ ko may ne ko orchestre bi wallaahi azim amul sama dëgg man la ñu mënul maîtriser parce que man sama dëgg dafa koo kongu kon Barito yow da nga sa daal dem ba fi nga xamante ni fa la terrain yi nekk. man yëmbal laa dëkk am naa fitu tëb tëb dem ci terrain jàmbur taxaw jël sama vidéo non non non non autorisation la am ak lu leer naññi mais nag comme li ma leen wax rek damaa bëgg li ma wax sénégalais yëpp dañ ma bàyyi xel ñoom dañuy ko combat xaalis dañuy corrompe nit nan ko waxal lii waxal lii waxal lii mais barki Serigne Saliou Mbacké lu corrompe bi métti métti mais terrain yi kenn du ko tabax kenn du ko tabax man maa la ko wax kenn du ko tabax man maay wax ak yéen de man lu leer laa leen wax te li ma leen wax moo am te ba ilaa yow di li ma leen wax moo am man naa soobis ba bàyyi soobis te kenn ma vaar parce que du ma fenn man Siri Diop jaralu ma fenn Matar Diop Soubatel jaralu ma fenn jàngaluñu sax nu ñuy fenee ñun xamuñu sax nan la ñuy fenee du dëgg jeex na dañ bàyyi fen bi baaxul soobis tax xama bëgg ni ki tax ngay wax loo xam ne amul xam nga di yokk baaxul mais audio audio yi nga jot kan moo ko envoyé audio audio yi audio lan la. audio yi ñu toll àdduna bi yëpp xam nga man mënoon naa yor audio téye ko samay téléphone rek naan audio yi audio yi ñëpp dégg nañ ko. te tey ku seetaan direct Adamo moo dégg dégg dégg nga audio yi kon Barito dépassé na sos dépassé na fen audio yi waaw audio temps bi dafa xat audio yi teg naa ko sama interview tey. yàkkan tey ban xaw ma nan info moo ma seet woon damaa fàtte tur bi Fatou moo ma seet woon tey. mais kan bi yàkkan yi yàkkan ne ñoo moom terrain yi ñoom ñoo tiñal seen bopp ci audio yi. ñoom ñoo lan ñoom ñoo tiñal seen bopp ci audio yi ko xam nga ñoom audio da leen yomb te nag bul fàtte ne instant bii nii yàlla xam na ne su ma la waxee da ngay naan déedéet ñoom daa am coow luñ bëgg fay rek moo tax ñu appuyé wu ci terrain yi di naaw ci terrain yi. lañ bëgg. laaj leen seen disque d'or bi fu mu toll. da ko laaj. yaa ngi seen numéro. laaj leen wàll utal seen numéro suba ngeen laaj leen disque bi fu mu toll buñ ci fàtte wax mukk fàttewuñu ko de. poto meew duñ ko fi indi poto meew parce que yéenewuñu kenn jàmm li ñuy wan nit ñi ak lu nekkul seen xol nekkul benn barki sëriñ. Eh, waaw. waaw bu génnee nañ ko taf gaaw suñ papa su nduur ne di si dooram gis ngeen nu mel ku ma kaw la sekk si dooram gis ngeen nu mel waa di si bi du gaaw génn wala di si bi waa Bambey ñoo ko organisé wala wala Louga na génn ah maa fekkee la bëgg na leer. na leer man li ma wax day leer dama ne disque d'or bu fekkee ne am na na génn ndam nu mu neexee lool nga am ndam di ko téye di ko naj. mais bari coow ndam ndamu disque d'or bi ko jëloon tamit réew mi ñëpp ko bokk d'accord naa loolu nangu naa ko te boobaa génnul senegal ñu ñëpp nangu nañ loolu noonu waaye na ñëw gaaw ndax ñu feete ko. Sénégal bu ñëwoon ah, ba mu neex. waale lan la. Sénégalais waale du bambara. du saraxule. waale sénégalais dil mën a way lool barki Serigne Saliou Mbacke waale dafa mën a way fu mu jëlee bi Sénégal ak fi mu koy yóbbu dafa sore waaye xam nga lan mooy problème bi ñi ko rax di ko soobiser di ko dóor ci kaw nit ñi ñooñu laa jug pour tiiñal leen te chaque jour maa leen tiiñal mais pour sénégalais nañ xam dara man ak waale mosuñoo jote waale nit ku baax la barki Seydouna Mohamed nit ku baax la nit ku gën la barki Alxuraanu Karim kenn gënu ko te ñëpp xam ne ne waale fu mu jël musique Sénégal ak fi mu koy yóbbu dafa sore mais gars yi sa jour dañuy dagg samay wax dañuy xool lu gën a bon ñu génne ko mais man Wally mosuma wax ci moom lu bon soo biir nag buñ ci tollee dañuy soo biir rek mais bu passé après lii dëgg dañ koy teg ci table bi ñu waxtaane ko mais Wally chanteur la bu mag waaye nag ñi ko rax di ko soobisee di ko dóor ci kaw nit ñi ñooñu laay wan ne sénégalais ay fenkat lañ fu ñu dem dañ koy tas te dañoo jug pour yàqal Wally. ñi naan bari toon nangu loolu Wally nag tey tey tey bu ñu déggee xanaa xanaa nangu sax rus na nangu xanaa rus na xanaa nangu rus na man waali li ko yàlla may man su ma ko bañalee man damay dellu ginnaaw ndax waali ku dee ak sa bàmmeel lépp waale moo ma ko ëppale instant ñu nekk ëllëg na xaw ma lan la ma yàlla def mais fi ñu toll lépp lu ma am rek waale moo ma ko ëppalee ah kon man lu ma ko bañal yàlla damay delloo ginnaaw waali yàlla nangu na ci moom man xamaguma lan laay doon ëllëg kon lu tax may bañ waali waaye nag la ne ci ginnaaw la dem fa di wër di jaxase di yàq di wër di fen ñooñu laay wane sénégalais ñii ay fenkat lañu te barki Serigne Saliou Mbacke en tant que bàyyi ñu man Barito du mu mës a teggi sama tànk man nee naa leen dund ma téeméeri at waaye damaa dugg téeméeri kër xale laa waaye dafa bëri nekk ci man te li nekk xel bii bu nekk wàccoon seen tànk dañuy la fañ barki Seydina Mox maa leen ba mille chaque jour samay interview ngi xaar ay tur duñ ko dégg te heure bu ma waxee nañ xam ne man diw laay waxal ndax dégg nga ma noonu la demee nag. voilà ñoom dañuy xeeñ luñ diwawul. dégguma ñoom dañuy xeeñ luñ diwawul. dañ bàyyi waale mi ñu ngi sàkkatoo dama ne waale ñaanalu ma ko yàlla te yàlla bu mu am. billahi wallahi wa taalaay bu demoon ba amatu fi. ñaanu ma ko yàlla bañ na waale yoratul bu boobaa xam ne ñu doon topp am naan duñ ko bëgg bëgguñu ko dañ koy mbaraan xaalisam lañ bëgg. Sidi Diop nag ku amul ngor doo ànd ak moom ku yeex doo ànd ak moom ku amul patience doo ànd ak Sidi Diop moo tax bu ñu fi ñëwee rek dañuy dawaat te nag Sidi Sidi daa am lu yàlla namu ci moom moo tax gudduñ toll lu bokkul ci moom day génn. xa dama la ne Sidi dafa am lu yàlla namm ci moom moo tax lu bokkul ci moom day génn ko duñ toll. kañ la ñëw kañ la ñëw Sidi kañ la ñëw. mais kon bari too ñu génn nii ñëpp dañ. xaaral Sidi kañ la ñëw. 2016 la ñëw. guddiñ toll am nga fitu. am nga fitu rek fitu dugg Sénégal fii tudd ñaare waykat te tuddoo Sidi Diop. billaahi boo ko defee yoon da lay rendi da lekk kon Sidi Diop yàlla suturaal na ko ñaata waykat ñoo fi nekkoon da leen a dégg. kon cooli bëree ci ko dem na nga xam ne kii la fi yàlla teg dama la ne lu baaxul kenn du ci wax te àdduna bi lépp sóobiit la àdduna bi lépp lépp concurrence la gis ngeen ngaaka waa axlu birig nu mu demee gis ngeen Macky Sall ak Sonko nu mu demee ah Youssou Ndour suñ papa ah, Thione Seck yàlla ko yàlla yërëm te xare ko àjjana di ko ñaanal xam nga àjjana bu sedd guy gis ngeen ñoom ñaar nu mu demee woon ah waaw àdduna noonu la kon tey Wally bu mu bañ Sidi parce que Wally moom bu muy doog a ñëw Youssou Ndour la tegoon bët bu mu ñëwee lu mu ko wax Dakar gi ci yoonu dem naa fa gis naa ko loolu la wax waaw kon tey bu mu bañ dara Wally moo taxoon ne Siri Diop boo fëggee fëggee fëggee kenn ibu dajjil buntu bi waa Siri daa dajji bu kenn bañ loolu fa lañ toll ay xale lañ te dañoo am fit mën a way loolu te sëriñ Serigne Saliou Mbacké bi jàppoon waykat yëpp tëj leen ci néeg waykat yëpp ñu tëj leen ci néeg ne ku mënul way dañ lay rendi man du ma dégg Sigi Ndigaale Siri dama koy lëng te xam ne day génn parce que Sénégal moo fi dàq fi dàq billaahi wallaahi wa taalaahi Sénégal de fi dàqa way mais Barito li nga wax sànq ne ku amul patience du topp Sidi. Ah. da ngeen jàpp ah mais. Sidi góor dëgg moo mën a ànd ak moom gis nga gis nga buñ naxante buñ naxante buñu fenante gis nga ñi jaar ci moom ñëpp ay temps nit ñi bëgguñu leen woon ñii dañ leen doon daw ñii dañ leen doon tam sax naan ay góor jigéen lañ waaye tey Sidi dafa mën a defar élément yaa ngi comprendre Sidi dafa mën a defar nit da defar ba nga baax. mais yow nag yaa am ngor man nag xam nga tax sama côté mu metti man damaa nekk un contre vingt man man damaa nekk contre vingt déglu li ma lax de xale laa de waaye damaa damaa damaa mën a gér ñoom xam ne may gér ak ñoom te damaa nekk nit koo xam ne àdduna du neex ba ma bàyyi Sidi Diop ma nee naa leen Sidi Diop ma pelante woon yóbbu ma kaso bu ma tëddee deux ans bu ma ñëwee kër Sidi Diop laay jubali barki Serigne Saliou Mbacké billaay wallaay wa taalaay Serigne Diop bu daasoon paaka ba mu ñëw bëgg maa reen ne maay takkal maay takk samay loxo na ko Diop rendil kooku man ak moom sekk ñu sax bàyyante dafa nekk sama déret bëgg ma lool sonn ci man daj ci man ay coono su ma ko fayal loolu man du ma gor doomu séeréer laa man du ma war doomu aadama du ma war nit moo tax ñenn ñi pour ñu bëgg ma day xaw jafe waaye dañ comprendre bu nekkoon jëmu bari too jëmu bari too kenn ma bañ aw ma noonu buñ ma xoolee ci jëmu Sidi Diop rek dañ may def noonu te man xale laa bañu ma kenn damaa nekk nit koo xam ne dëgg moom fi teg dëgg rek moom fi teg waaye nag Sénégal nga nekk far fi day xaw a métti bu faree ragal féete dañ lay bañ man ragal ma féete man Sidi Diop laa bëgg moom laa gëm moom laay topp ba illaa yow mi diini Sidi jóob laay topp kuma ma ci bañ nag ma bañ ci loolu ku ma xas baax na ku ma saaga baax na xam nga lu ma waaye wax ci Sidi man bànneex la mbégte la Diop yàlla ko yàlla defal jàmm waykat yi fi nekk nag di balbalu dama leen di ñaanal yàlla gudd fan wér-gu-yaram waaye nag waaye nag